وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بنيتي ونيتي تبارك به الآيات الحمد لله خديم الباقي الأراضي نصب واتباع الحمد لله خديم الباقي في الأراضي النفق والتباخ ووالي لا يموت أبدا هو رئيم لبيت هذا وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى أمامي وبعد مساجم جل مسيح الشيخ مصطفى المكي شهيد رجال yéen murid njàmmee ngi dee di yuxu di jooy xalifa bay donoy si liixu moo di xalifatu xalifatu rasul allaay si ahmadul baki saay bu sol المصطفى وإلى يوم مصطفى المكي بباي توبا مصطفى المكي وكل ما قدره الإله لمؤمن أفضل من سواه دنيا تذكر سخوديال خير الورى ومكة قجال في أبدهم تفوتهم safaanu jox ko ciiru million ci xulafa dogal bu ànd ak coobareem lay faate loo ko ji ko ji deen kaay nu waati waxtuulu si lu kataat ci mbakke saawi katu naw ci di xayri shakki uxul bu kaawu jooy leen nu Mustapha xol bu kaaw jooyalal nu Mustapha Mustapha xutbu samaani see ba dem ban fa teewoon mu àggale jumaay Tuuba te nun nu faatu ndax mu jot ko booba juma di jooyal na ko ba ser baatam ba su ko sañoon fekk ren baayam ba jinne jooy nañ ko rijaalul xaybi jangoo nañu jango ba sooy bi xal bi suubam jooy garab yi jooy nañ am bi ngir asamaa yuxu nañ ca sam bi jàng baanis na yaramee deppa ku saan wafaati di jooy xutbu samaan jigéen ña tengoo góor ña buur di daanu ñelee di tay ba dem ca daanu ñee tabi àll far dem ba faatu ñee maw lekkatuñu ilaa ayaatu neexoon keroog na faatu ànd ak Mustafa bu xaru jaadu woon mu di faatu faa ak jaadu yi bale wéy na ak yàlla yi ma jooy seex am di jooy ma mos la jooy xubay la am di ak yàlla yi sey banam na tuuba ñi bi baayam booba ak ki alay aduna sama juuy ñoo leenu dem abadan kana ab ki aliful ku mas on jooy na ab ki aliful ku mas on na ab ki alikal ku mas ga jooy na ngir aduna ka ka cooli booy na ab ki alif góor gu way ga dem na way mel ne man di jooy mbir am na ab ki alif taburoy ba dem naa wa kenn dootul bay bori te réew mi xam naa am ci àll kuy sarax min tiiye day toppatoo bàyyi ak njëriñ yi am ci àll yi kuy dundal daay di wodd woy rab lay ak xatal yi ci àll yi kuy defar waa Tuuba te toppatoo Jurbel ta def ma booba ak yàlla yëpp waa Jurbel ja dem na daana may wata kita ndar xam na ak yàlla yi ak yàlla yi express ba dem na bagaas ya tarde nañ paas ya ron na ak yàlla yi suñ ñëloor ga dem na rab yaa ngi xironte way ay am na te bari ngor xam ñil la caq ba dogoon ren ci weeru saxbaam jigéen bareer na teru sawee saaraan ci yow mi jumaatin la reer ba Tuubaa ci ñetti fan seex am ni mooy tàmbeel ba tàmbeel ba reeroon ca cosaan ni di ko jeex moo ca desoon feriñu golo ya jeex aa in ba aa in sumaayin aa ii woy man woy leen ma aa in alaa baxdil xali bi am di si amut tabaal mbàkkeew maa ngi tarde aa in alaa baxdil imaadi tuba كالري لبون تيجس بابا عائن على فقدي سراج الله لفظ الليل مبين دون الله عائن آه، على سمس الورى لله خلف القديم دون الله عائن آه، على سمس الورى ولا لله جنب بلد الرمس مان الله على باب هدى لله بالملك والملكوت الله آئم على حرم رجال الله موسم برايه خلفاء الله آئم على هد الوراس الجاري خليفة القديم دار الله bismillaahi innallaahi lambu ja tas na mbër ma dem jinaani suur mbari yaa ngi bàkku fi samaani ku man na yeesal diine doon waajaat tarxiya mbooloo ma tabax jumaa jaa déglul ma wax la yow atum juddoom baax saay nopp aama wasasin ثالثا دار السلام دار السلام دار السلام يما سورا مودون غنمغا بابا ميرا هبون بلنجل الاستغفار بغنيو توبا وما أبرار هكونا بهم الاستغفار ngir bëgg ñu Tuubaa ma la bal bis ba mu gënee àdduna gis naa booba leru Rasuulallaay sarbat Tuubaa maam Ceerno maam Ceerno maam Ceerno yooyu xondoo ca yor yor moo ko yëgal Seex Bamba kooku mooy góor Bamba Ceerno nan wax boroom saam maa ngi ci xalwa maay defar bi saam sëriñ mu ma jaara sot de xat wa fat de ko boppam Bamba ñëw ni Mustafa ca moomat la Bamba sanc Tuuba ci weeru wa ñu naa ko kooba ñu naa ko Mustafa yaaram ba mooy doon yaaram taaram ba semmal la ñuy bette betey waa Kokki ñu naa ko am ngir Mustafa yaaram ba mooy doon yaaram ajabal taaram ba mooy noobalu yaay daay waa Mbakke semmal na ñuy bette betey waa Kokki sëriñ yi waa Makka ak waa Madina amuñu woon ku mel ne moom ci diina Amadu Aminata weeru badri taaru nga tabeere ay nahnu badri boroom ci diiju rëy la xaqi ak daam amoon na nuy jaloore door a xam daam ak seyo moom jaabuñ yëpp ko sóob ab diig akub doroo be dañ koy liiru fetu mataar mu be ma sa joon mbokki ak sa digga di fokki moom njëmbatam jag na bu yàgga yàgg moom xiibul woon ba mu door nekk seere mooy la babaaya ni yaayam mooy sawjatan aatan fa baayam moo jëkk a mooñ kerey lay taalaale fa néegi Tuubaa mu la sol jaalaale moo jëkk a bab ruwaam nga defal yaa jëbal ko Bàmba ndey ja mooy waliya ku wedi laaj ko Seexu Mbàkke maane mbaa Abdoulaye Jaw soxna saa kay waade mbiram sañi fi ko biral ci njëleer nde kon dinaa leen ci mosa waar mbiram sëriñ koobiyel ci njëleer nde kon dinaa leen ci mosa leen waar wax ju tungoom seere la ngir xalifa du ku jur ko naw leen deefa looloo taxoon ba Bamba ni Umar Géy ñoral fi man ma baj sa aajo tey tey mu ne ko Moustapha mu ne ko Moustapha la def xalifa mooy sama aajo su amee ma deefa Cheikh Bamba naa ko ak sa yàkkoonu kun ko yàkkoonu moo ko may sukkoonu su Moustapha doon bari tam di ardo ngi yaare wàllam yépp am nay fardu su Mustafa doon law bi dégg maalaw bu doon ci buur di fardi dégg aw law su Mustafa weexoon ñu naa ko gouverneur su doon abaree dégg entrepreneur su Mustafa doon jaar ñu naa ko saaman su doon weer di weeru koor mbaa sax baan su Mustafaa doon rabu àll diw ñey mbaa ngaa damba njamale ñépp naa cey su far di Makka mbaa muy Madinatu mi gën ci rakka su Mustafaa doon xeeti mursaliina manaa ko yaadi seydi lawaliina su Mustafa doon góore mbaa waliyoo mën a ko yaadi Ahmadul Mbakiyu su Mustafa doon jéedi mën a ko yaadi Daarul Muhiti yaati war bilaadi sere sa mooy sere sa mooy nam defanteeg baayam kewam nga di nga ni moo waayam bisub talaata la ko yónnee leetar mu jug tabaski di ko laaj ay meetar ne ko nga jox ma la ca saaru xabri soo ko xamul jàngal ma fu sori sëriñ ba ñu wax maam saar sëriñ ba ñu wax maam saar fa kanka mooy sunu seere bul ko sikki sàkka sun jotaay ba woon ca waxtu takkusaan moo sunu tàggoo danañ daje ci naan keroog la jaay dagga joon ba diisoo muy junni la Mustafa du diisoo yónnee ko Bamba boole jaraabam keroog la mat xalifa baayam keroog la Bamba jox ba Isaa li piisu toppit siisa ma wax la yaay ju baax ja ma wax la yaay ju baax ja faatoo moo Aminata Lo moo yaatu ci yastasil la faatu woon fa Tuubaa Seex Bambaram mu ko mu tabbi Tuubaa jannatun ca at la bamba dem gànnaaru siyaare sef si di naarey waaru ñu ca caay at bay ba sañ baari dajale ba si xaari wal kibaari yebal ka maam cerno maam cerno maam cerno mu yor ko yar ko jàngal ko alxuraan ba xëy defar ko Seex Bamba am juróomi weer fa baari tubaab ya woon fanaan ko ndar ngay jaari mu dégg Abdul Mustafa maam Ceerno mu dégg Abdul Mustafa maam Ceerno ne ko nu ma xalifa raw gouverneur keroog la dégg Mustafa fa jiwaat yenu ko yen baram mu réewi soodaan keroog la dégg Mustafa di xarnu ne ko ramul maleem te fonku ceerno mam ceerno baatee ko dalal baasiina ba bay ba ñu jeej far ko del yaasiina fukki atam la wattu alquraana fa daaru manaani fa saaka baana fa daaru manaani la bindéeb kaamil yene ko Seex Bamba ci géej ya kaamil ku yeddu loolu laaju Abdoulaye Ndour mooy yóbbu kaamil ba Moustapha mooy góor kaamil ba moo fi kamaal nga ba jafe naa ko Moustapha kamaal nga kaamil ba moo fi kamaal nga ba jafe naa ko Moustapha kamaal nga ba Bàmba ñibbisee fa Daarul Manaan fukki at ak la am di mbaawam keroog la tàmbalee muritu baayam keroog la tàmbalee muritu baayam cekk sasil ba wan sasil taarix ba bindal liggéey ak jàngaleñ daa boole laa jël sëriñ Fàtilu nii di xoole bamba yi leen taliyaa fi sarsara jaraaya ne waa lansara bamba yi leen tarxiyaa bi jolof njaay fa daaru rahmaani ñi lee tonon la sampee kër ga tàmbali mbal ko mbër nga muy mbër mu ndaw mu tàmbalee kenn du ko sorooti du jëf mbaa xaw li Cheikh Bamba xëy defal ko benn dénk bind cay xabaax li la ko dal laa tan tan yotal hedan ko illayat zaniyatan lada kulli layat la tan zaniyatan lada kulli layat fa ina tajaalu afdala ayat adim qiyaama lay doon ak sëriñ obi tilaawati fu doolan axsini wadana sa xibaati naqi bi sukkoor wacili rabbikal mukarrami sakoor wan yi nafsika xuyooran wallimaan raaytoo yatlubuha kulla samaan وبالذي يرضى إلاك أرغابي وانسوى ما ليس يرضي أرغابي واليوم ناكو تعبو ترباني واليوم ناكو تعبو ترباني مصطفى واليوم ناكو تعبو ترباني ريدون مجاني سبت بلاياني xar kanam ba mel ne weeru badri leeram ja ànd ak weer ju ja dahri ya daaw li laazima kulla waqtin mabsuutatan faati ahlil bayti bu dalli bam na yoor ba talla réew mi ku ñëw mu jox lu lay sëmoo na xaw mi léeg-léeg sëriñ boole ko mbooro léeg mu am ñu koy dikkal ci réew Seex Bamba Seex Bamba daal di koy yebal Mbàkke Kajoor ba mu demee ba ñëw la jël sirab Kajoor ñu teg ca ayaat Bamba wàcc Njurbel ca la sa sin wax jooju duñ ko barxal Njurbel la feeñee Njurbel la feeñee mel ni jandum joloor seen di xëy yebal ko Tuubaa yoor yoor ba mu ñëwee Tuubaa la jël siroom ba daara ji ma gëna ko yaay boroom ba mu wakkit teen ya